Thank kan kii kan la kii mais lii lan la lii lan la lii lan la wala sa mais mais mais lay la la mais mais papa une yow looy wul fii yow sama doom la sa doom la non eh gën daanu na yàlla yàlla may def nuyu naa la fay naa la baax son bi fan la jógee histoire son bi lan la ah ñoo jóg borom son bi ak borom pluriel bi ak pluriel ko la jógee ba def si kot aa ah, ah. def ko waaw ndeysaan mais noo ko gisee tey am na yaakaar baax na la ba jas yaakaar aa ah, yàlla may ndam nuyu naa la. fay naa la baax. non non looy wax si xale bi loolu si mën a wax. waaw Diop daanaka la xale la bu nekk si yoonam di dem. dëgg la nañ ñaan yàlla dafa ko jar rek. mu yeggali si yoonam ak jàmm ak salaam. dëgg la yàlla may ko ndam tey. waaw loolu la ko may ñaan yàlla may ko ndam bu baax a baax. daa ñëw ba si boppam man wóolu ma dégg ma boppam. su ma yaakaar dëgg la moo tax ma ñëw teewal ko rek. ndax man aw ma temps sax instant dama ne ndaw ñu mag a mag moo tax ma ñëw teewal ko tey. dëgg la neex naa ñaanal. waaw neex naa ñaanal dafa yaru. dafa yaru ndax benn bëgg tamit. tey booy daan caa tey booy daan caatu joon nan nga koy daanee. waaw def si ko rek dina am ndam bu soobee yàlla. waaw am na yaakaar bu baax a baax. am na si yaakaar bu baax a baax. yàlla yàlla may des mais xam nga ne du la bàyyi te ñamaloo ma si Modou Lo Boy Niang. yàlla yàlla may ndam Modou Lo. yàlla ko la may ndam parce que dama xamee. nan nga jàngatee combat boobu. combat la rek. waaw boo ñëwee daanaka xarab nag si yoon bi dem. mu ne yor roi des arènes. waaw te pareegul ku jox roi bi. yàlla ko la may ndam parce que Babacar. yow bi nga xoolee combat bi ndam li fan la jëm parcelle kon boo ma la déggee Modou Lo daan Boy Niang si kattan yàlla roi parce que day fan suba jël bi fan lay amee ci biir fu mu ko choisir baax na Boy ah. fu mu choisir baax na mais lu mu def Boy daanu suba am na yaakaar roi parce fan incha allah parce que lay fanaan Modou Lo mënu gën suñu bakkat ah ah nga yaakaar Modou Lo Modou mën waaw Modou dàq bëre waaw Modou am fit ah, ah. Modou am xaalis Modou am dina daan mbël li daan bër waaw ah. suba dina leer incha allah bilaay Modou Lo sama bakkan bi Aha, bilaay wala bu ñu bagaaree wóor na si Modou Lo bu ñu xeexee mu duma ko suñu bëree mu daan bu ñu jàppandee ngeem mu daan ko bu ko caxa bu ko booy ñaa dugalee caxawal daan kon daal booy ñaa amul benn sens kon jarul muy ñëw daanu rek su toogee këram sax bu di ko joxe day daanu si yow da ngaa gis loolu combat bi nii Modou sama Modou la Modou sama Modou la da ngaa gis combat bi nii sama Modou la nga ñaata yoon nga seetaan combat bi lu koy jeex ay sarax sarax sarax ak tegtal rek sarax ak tegtal suba ban tegtal nga mu mën a wax sa Modou Lo non du ma wax bàyyi ma téye ko bu soog ñu def ko yàlla may lu lan ngeen di daan moom lañ ngeen daan suba insha allah ngeen bu zone lay ngeen boo kattan yàlla combat bi day yàgg bu yàggee mu daan su yéexee mu daan bu soobee yàlla la ilaha illallah fàttali ma tur bi taalibe Cheikh taalibe sëñ Babacar taalibe sëñ tur bi Mor Mor bu taalibe sëñ Babacar sama xarit ziar naa la bu la bee ko kon ba si kanam incha allah ba si kanam jumtukaay baa ngoog dégg ngeen lu Mor wax nee na Lo day daan Boy Niang nee na Lo day daan Boy Niang oo suba borom jaar moor bu sëñ Babacar a ngoog moor bu sëñ Babacar a ngoog nee Lo lu mu def daanu ndeysaan sama xarit mbër yu ma gis mu ànd fii yëpp yàlla da leen may ndam saa yu ma ko gisee rek dama koy dama koy 10 sur 10 d'abord.